Euh, lii ñuy def yëpp genre mascarade la pour gagner du temps mais gagner du temps pour après def lan. waaw xam nga xam nga mooy la question qu'on doit se poser mooy que cherche le président Macky Sall en réalité parce que réew mi moom umpul kenn ne lii mascarade kase la je je reviens un peu sur la décision du Conseil constitutionnel je pense que il y a beaucoup de gens qui parlent ils peuvent parcourir la décision mais je pense que liiruñu ko bu baax man am na leneen lu ma ci euh, lire. mooy parce que sa ça ça a été très clair. man xam nga lan laa ci liir te mu intéressé ma. Mm-hmm. mooy le con conseil constitutionnel daf nii hmm? président ak ñi nga xamante ni ñoo war a organiser élection yi ñu organiser ko dans les meilleurs délais. waaw xam te bu nee ñi ko war a organiser. Ah. moom mooy les les les les franges de l' Sénat. que euh, ministère DGE et cetera et cetera daaw. Mhm. xam nga ñooñu la ñu wax ñu organiser élection yi. mais ñii dañu jàpp ni. Mhm. kàddu gi président moom képp lañ ko jagleel alors que conseil constitutionnel li mu wax dafa leer. waaw xam nga ñooñu c'est des démembrements de l'État mais doguma la sax mais. parce que dañu. Mhm. le conseil demande aux autorités. <coughs> compétente mmh. pas seulement au président de la République de prendre des mesures pour organiser l'élection dans les meilleurs délais les ah. autorités compétentes xam nga Bira pour man cette euh, décision il faut que ñu liir ko en réalité gis nga le maire délais loolu ñu bari dañ cee nekk di wax di wax en réalité meilleur délai boobu sax pour man mon analyse nañ ko teg ne tuuti teg ko à côté waaw. on parle de la décision dans sa globalité. Uh-huh. conseil constitutionnel lan la def en premier lieu am na effectivement ñu ko attaqué woon le décret au niveau de la cour suprême uh-huh. conseil constitutionnel dafa fàttali ne. il la plénitude de juridiction en matière électorale maanaam moom mooy juge électoral loolu la njëkk a fàttali jóge foofu da ngay dem ci considérant 14 bi considérant 14 bi lépp la ci wax li njëkk mooy le conseil a déjà décidé depuis 2016 a déjà décidé que le mandat du président de la République ne peut être prolongé ou réduit sur la base de euh, euh, euh, des situations du moment quel que soit l'objectif recherché le président Macky Sall a dit que jàmm laay wut xawma lan laay wut le conseil a dit quel que soit l'objectif recherché le la durée du mandat du président ne peut être ni réduite ni prolongée ni allongée c'est intangible c'est l'intangibilité du mandat qui a été définie ou bien consacrée par l'article 103 du Euh, de la constitution loolu la njëkk a fàttali fàttaliwaat également ne d'une part euh, président de la république yow vous êtes élu au man euh, euh, l'article vingt-sept dit que président le mandat dure cinq ans par conséquent le 2 avril le mandat am di jeex. considérant quatre ban nga waxoon. quatorze. considérant quatorze considérant 14 bi da koo njëkk a fàttali ne ko damaa décidé woon. depuis 2016. le conseil a déjà décidé que le mandat du président de la république ne peut être réduit ou allongé selon les circonstances politiques quel que soit l'objectif recherché. Mhm. que le mandat du président ne peut être prorogé en vertu des dispositions de l'article 103 présidé moom nga euh, consacre l'intangibilité du mandat. de l'élection ne peut être reportée. au-delà que ne la date. de lelection présidentielle ne peut être au-delà de la durée du mandat. oui et le mandat c'est cinq ans. li ñuy wax sax naan euh, euh, le conseil constitutionnel mu ne day dem waxtaani ainsi de suite xam nga bu sa mandat nekkee cinq ans di jeex la 2 avril. le conseil le la constitution da ko daa verrouiller même le fait que parce que le président de la république lenn la ci am actuellement bien évidemment il est toujours acteur mais lenn la ci am mooy fixer la date. date boobu sax joxuñu ko cëgal guyam ne ko fixé ko nu mu la neexee. date boobu l' article 31 de la constitution dane la cinq jours francs au plus. 30 jours jours francs au moins. par conséquent ñu jël référence su date ban référence la mooy la le terme de son mandat mooy le 2 avril. maanaam fii ak le 2 avril foog mu des trente jours avant pour nga mën a fixer date bi wala 40 jours avant 45 jours avant euh, francs au plus. par conséquent. le, le, le la constitution a donné l'intervalle de temps bi le président Macky Sall war a jële daal. donc le président Macky Sall ci loolu la war a conformer wu. les candidats 16 réunir ne ko on vous propose la date du 3 au pire des cas la date du 10 mars parce que ils ont calculé cet intervalle de temps la yow nga ne da ngay woote dialogue di jël ay spoliés ay recalés ay ay so ay ay ay volontaires bëggoon naa bokk mais war mujjumaa bokk. mais c'est du n'importe quoi ce pays pour man ce pays est, est, est, au-dessus de Macky Sall en réalité le président Macky Sall a déçu je suis désolé de le dire parce que tey waroon na mën a jéem a fexe nu muy génnee par la fenêtre sax parce que il avait raté la grande porte depuis très longtemps mais c'est dommage que il s'est accroché parce que en réalité de quoi il s'agit dafa bëgg a yokk mandat dafa bëgg après au lendemain du 2 avril ñu ne ko toogaat fi mais loolu ça a été déjà verrouillé parce que l'article 72 92 de la constitution a été très clair tey jii bu ñu demee ba le 2 avril le président Macky Sall démissionné wul loolu ci exception d'incon d'inconstitutionnalité yi la bokk même boo ko attaqué cour d'appel wala nga attaque ko cour suprême c'est le conseil constitutionnel qui est le juge moom la lay indil la plénitude de juridiction bi mu am ci compte te bu boobaa le conseil constitutionnel wax na ko depuis ne ko sa mandat cinq ans la yem donc le conseil constitutionnel ne peut en aucune manière ne ko da ngay yokkuwaat sa durée même bu dee intérimaire waru ko moom assurer par conséquent lan la bëgg loolu bu ñu duggee ci débat bi. lan la bëgg parce que mën na demaat ba ci biir spécium keroog la fois dernière mooy interview téléguidé boobu mhm. dugal na ci mbiri amnistie. est-ce que réellement le président Macky Sall ne veut pas chambouler les choses pour après essayer de faire voter l'amnistie loolu dinañ ci ñëwaat parce que man je ne vois pas réellement ce qu'il veut parce que au-delà du 2 il pouvait se dire que bon l'article 36 2 euh, bi bon c'est ambiguïté bi les gens vont analyser pour que le conseil constitutionnel lui dise euh, bon assure l'intérim loolu c'est déjà acté le conseil depuis 2016 nee na ko sa mandat nga ñëwaat tey ci décision bii mu ne ko dama lay fàttali ne décidé woon naa ko bu yàgg. par conséquent le président de la république ne que ne peut en aucune manière faire un jour de plus à partir du 2 avril. donc moom il ne cherche plus à augmenter son mandat d'après mon analyse qu'est-ce qu'il veut réellement. Okay. boobu je pense que bu ñu duggee ci biir on aura à élucider cette affaire la Mboup.